téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. Serigne Touba. on a cessé de le dire. Mm parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. c'est grâce à ses œuvres que nous sommes ici. tout d'abord je les plus sincères de son excellence à l'imam Bal hmm. et à la communauté tout entière hmm. sénégalaise établie hmm. à Mayamba. Vous êtes une communauté exemplaire. Donc, j'aimerais encore vous dire que son excellence tient beaucoup à vous. Parce que chacun de vous est ambassadeur que là où il est, représentant de son État. Remercier encore sëriñ Kosombake, le représentant du Khalif général. yàlla na fi lool te ànd ak wér Koso jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup parlant de la relation entre Sénégal et le Gabon. J'espère que monsieur le directeur de cabinet est là témoin. Effectivement, il est en charge du dossier parce que son excellence Mam Oumar Thiaw a le maire et lui-même. Nous avons tenu une séance de travail sur ce dossier dans le cadre de la coopération décentralisée. et espérons que on aura des résultats positifs. Et ça, avec les prières du Cheikh, nous l'espérons bien. Et de cette coopération vont naître, j'espère, des protocoles des accords, dans tous les domaines d'ailleurs. Il n'y a pas que la formation, il y a énormément de domaines qui vont s'enrichir, qui vont enrichir le cadre juridique déjà existant de la coopération sénégalo-gabonaise, qui est très riche et diversifié dans tous les domaines, que ce soit économique, culturel, surtout éducatif au plan de la formation, c'est déjà acquis. Donc j'espère que prochainement, les accords et les protocoles qui seront signés, bien sûr, comme vous l'avez dit, une fois vos études de prospection à Touba avec vos homologues et avec aussi l'ensemble des techniciens de voir les domaines de coopération d'un commun accord bien sûr où vous allez vraiment mettre en place ce cadre juridique qui a déjà existé mais pour redynamiser surtout les villes cent de Mayomba, Touba et Lambaréné parce que au plan diplomatique quand on parle de la diplomatie religieuse elle est un peu en avance la diplomatie religieuse est un peu en avance parce que les deux pays les trois villes sont déjà connectées parce qu'on ne peut pas parler de Touba Touba est aussi célèbre que Lambaréné et Mayomba donc ce lien existe déjà naturellement Donc je pense que ces travaux ou bien ces visites viendront, vont naître d'autres accords qui vont se greffer dans, euh, dans le cadre juridique euh, sénégalo-gabonais qui existe déjà. Donc euh, sur ce plan, rassurez-vous, nous suivons le dossier et le directeur de cabinet le sait très bien. Il a venu à deux reprises à l'ambassade, il a été reçu là-bas. Donc euh, nous suivons de près le dossier. Euh, le Cheikh, c'est juste pour vous rassurer que nous suivons de très près le dossier et le directeur de cabinet le sait et le maire le très bien. Donc euh, sur ce, euh, j'aimerais vous remercier tous, remercier toutes les autorités euh, gabonaises et les autorités municipales. Mm. Euh, dire merci, merci beaucoup. Ah, ginnaaw ba mu fa defee juróomi at fii la ñëw def fi ñaari at yu teg ay weer yi nga xam ne moo mottali tukkib géej gi waroon a nekk juróom-ñetti at ci suufus Gabon. fii nag li liñ ciy tënk rek lu gàtt lay doon eh, sëriñ bi mooy nettali boppam moom bi mu fi bi mu fi ñëw ak ni mu fi ñëwee. bi mu jógee maanaam dafa xam ne duggal dugg naa ci dem naa ci dun boo xam ne nag moo fay dugg coono laa fa duggee loolu fa faut ñu di ko leeral ndax moo ko bind. coono ba sax day wax ne metti ga lenn rek ko gën a metti moo di ruu gu génn ci yaram loolu rek moo gën a metti coono bi ma daj fii mu waaye nag sant yàlla am na ci ndax lii représentant maire doon wax léegi dafa mel ne sëriñ bi dafa gisoon jataay bi ak jataay yi mel ne moom ba tax bi mu nettalee loolu ba àggal ci ci téeréem boobu mu tuddi gisaa u secours lantuuf j'ai teg ne waaye yàlla defal na ma ci suuf suuf lambar na soos yi nga xam ne ku xam farata wala sunna nekku fa ba ma fay dem moo ko wax léegi xëy na wuute na ak léegi ndax macha allah imaam ngi fekk suñu bokki jullit yeeg suñu bokki taalibe yi di ziar bu baax nag euh, waaye nee jamono booba laysa fiiha ay fi ardi lambarana man yaarifu bil fardi wala bi sunna amu fi woon waaye lam ci teg nag mooy suñ jitaay bii nag fa sirtu fii wala inda ahli tilka al ardi kon hmm, moom mu ne ma mujj mujj naa nekk kuñu ñu màggal ku ñu wormaal ku ñuy teral ci suufu Lambaréné tabjil booba ak ixtiraam booba ak takrim booba jàpp naa ne suñu jitaay bii ci lay dugg ak yeneen jitaay yi ñëw ndax ko dégg lii ki fi teewal maire maire bi wax te fàttali nañu 2000 bi ñu ñëwee fii ci mairie bii ci biir mairie bi ànd ak sëñ Lamine Mbackeem Cheikh Matoda ci njiital sëriñ Fallou Moussa Baye Fallou ñu jógee Libreville ñëw fii maire bi fi tekkoon jigéen la woon keroog moom ci boppam sëñ Cheikh Mbeng du ngeen ma weddi fekk ngeen ko moo wax ci làmmeñam ne seexaleet Lambarana ak Touba laa bëgg kenn proposé wu ko moo ko wax image yaa ngi fi ak ak ak son yi ñu noppi mu ne damaa bëgg ñu dem ci colline de la paix bii nekk fii ni nga xamee ne docteur Albert maanaam Schweitzer mi ñu tudd léegi te docteur allemand bu ñëwoon fii bañ tuddee ko fii ab hôpital tuddee ko hôtel bu ne fii suñu ginnaaw ak ay ay ay rue ni mu ni mu fi amee cër boobu bëgg naa Cheikh Amadou Bamba itam amee fi cër bu maanaam boo xam ne day toll noonu ba joxe woon fi sax benn hectare ci boobu jamono ci ci ci ci atum 2000 kon wormaal googu sëriñ bi wax ak fonkeel googa day mel ne jataay bi da koy findal ak yeneen jataay yi ko jiitu ak yi ciy topp xew-xew yi nag bu ñu ko doon tënk bari na waaye mën nañ ci jël rek benn ci yi nga xam ne sëñ bi nettali na ko ndax fii su masaana bëgg a jàpp day wàcc lii montagne la day wàcc jaar ci riz riz rii bi nga xam ne léegi riz xëy na commercial la wala ci boobu jamono xëy na amoon na ay yenn yi fi nekkoon waaye daal tumuraanke am amoon na fi moom da daan wàcc dem ci mango yi ci maanaam dexu dexu uguwe gi ndax xam ngeen ne Lambaréné dex gi da ko séddale ñetti xaaj am na rive gauche am rive droite am île de na sëriñ bi nag da daan wàcc dem ci mango yi jàpp ñëw yéegaat fii fii nag tawte na fi bis tawte taw taw bu metti bu ànd ak ngelaw boo xam ne rëbb boobu bi ñëwoon tuxu si dend ak moom dëkk ak moom dëkk fii ci ci suuf kër commandant bi soriwul mi ngi fii camp militaire bi mi ngi fii nga xam ne dañoo seq sëriñ bi rëbb boobu bi mbaar moomu daanoo mbaarum sëriñ bi daanoo ci guddi googu sëriñ bi jël ay téeréem ak yenn bagage yi nga xam ne ndax moom mu tooy amul jafe-jafe waaye téere yu tooy moom dara jaru ko ci àddina mu wàcc dugg ci kër rëbb bi nga xam ne cinquante francs yi ñu doon jox sëriñ bi bokk na ci li taxoon mu tuxu si fii ngir sëñ bi da ko daan sànni ci dex gi ak di ko sànni ci suuf moom mu koy for mujj sëñ bi di ko ko jox bi mu ñëwee fëgg ko guddi muy taw taw bu bari ànd ak ngelaw mu ne ko dama bëgg nga may ma fu ma fat sama téere yi ba suba mu ne ko ah, néeg bi de kër gi de benn néeg fi nekk te maag so maag sama soxnaa ci ne boo da boo bëggee daal waañ wi mën nga koo defar nga nekk fi da seet sëñ bi giitum rànk lu amul lenn lu ko gën a métti ci àddina sëñ bi nee na moo baleel boppam ruumu waañ wi jël téere yi teg toog jublu penku ba mu xëyee waa ji xëy na am na sentiment tuuti ne ko nañ dem maak sama soxna si ñu jàppale la nga defar sa mbaar mi mun ne ko soxna si moom jërul muy dem waaye yow yow mën ngaa ñëw ñu dem bi mu ñëwee di ko di di ko jàppale ki doon seet si sëriñ bi di ko contrôler ba xam ndax am na ko koy taxawam déet gis ko dem kalaame ko kooku jàpp nañ ko tëj ko ci at moo xam ne ngir punir ko rek moo tax ñu def ko ñu ne kon sëriñ bi xëy na 50 francs yi ñu ko doon fay da koo xeeb nañ ko dajale at ba mu mat 120 francs ñu ñëw di ko jox si bi ñu ñëwee fekk ko mu ne ci ay deeleem ndax ci téere bi ma tudd léegi bi mu waxee wax ji wax na ne mujj naa ci suufu na doon koo xam ne deyaale yi may deyaale ak sama borom dama ci am bànneex bu rëy rëy boo xam ne fa daf may fàttaloo fitna yi ak nattu yi ak noon yi mu nekk ci deyaaleem yooyu di jàng wala muy bind wala muy julli waa ji taxaw xaw a énervé ne ko marabu li ngay def amul solo xaalis moo am solo xaalis mooy yàlla kon laal na tawxiitu sëriñ bi te cheikhul xadim man taqama li nafsihi qattu ka maxdumihi alayhi salaatu wasalaam wa lastu li nafsi fi daareeni antaqimu waaye nag buñ maanaam mës a fayul boppam waaye buñ xottee ormay diine rek wala ñu laal pas-pasam wala dem rek ñu daal di gis nag jëng jikkoom nag maanaam mu foofu nag mu daal di mer mer ngir yàlla day mer ngir yàlla waaye du mer ngir ngir bakkanam wala ngir yilla mu daal di jël maanaam gis xaalis gi boobu boobu jamono xaalisu ngurdu lay doon mu sànni ko ko mu dal ci jëbi ba xaañ ko tubaab bi porte plainte ñu woo leen ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp convoqué leen ci benn tribunalu militaire bu nekkoon fii ci Njole ñu fii ak Njole xam ngeen ne soriwul lool tubaab bi wala waaje waaje ko kalaame moom wax nañu ba muy dem di wuy ji lañ noppee xam ci moom dara ba tey kenn xamul ci moom dara sëriñ moom dem na mujj ñu annulé procès ba daal wala daal xëy na noolu yi am na ci kenn waxatul lu ci jëm loola ci la binde bayitam boobu nga xam ne maanaam bayit bi yetiim la da koo nettali ci xasida gurum naa gi nga xam ne fii fii la ko woyee mooy yedii li muxnin karimin naafi an samadin jooju bayit la woo xam ne yetiim la woon mooy bayit woo xam ne amul xasida gu mbokk waaye bi muy bindaat nag rum naa da ko caa nettali nag katabtu anni laa amuddu yadi ila nasara abidi l maai wa tiini kon di wane tawxiidam ak ngëmam pour bañ a guddal rek yooyu xew-xew la yoo xam ne xew na fii fii itam la ko euh, xale bu xale bu góor bu boo xam ne yàlla da koo jay waxambaane wu tubaab la yor jaasim ñoo fekk fii ci mbaaram muy bind mu yor jaasi ji taxaw tiim ko ne ko Ahmadou Bamba ba mu xool ko mu ne ko moytuma te xam ne man damaa doon sama maam ji nga xam ne waliyu yi fi daan andi ñu leen daan rey sama ma sama maam jooju moo leen daan te doon naa ko ci loola kon moytuma sëriñ bi nee na ma bàyyi ku baax ma mu jël xalimaam nga joxar bi ko ne ko yow it moytu ma moytu ma te xam ne doo sa maam jooja te mayit duma ma ñooñee sa maam jooja daan rey mu daal di dem tiit am lu ko dal malchance ñu yedd ko mu ñëw indi gàttam am xaram ak daam xam ne Sëriñ Tuubaa bëgg na daa ndax loolu lay liggéey lay liggéeyal sallallaahu alayhi mu ñëw defeenu ci suuf te kilifa la xaleel waaye kilifa la moo xam ne mbooloo mu bari nekkoon ci ginnaawam mu defeenu ne ko duma ma jóg mukk te jégaloo sëñ bi nee na ma daal di maslaa ak moom rek jël daaja daal di bind fa saasa bayit wuy firndeel xew-xew boobu alaana li laylata nga xam ne waxtu guddi la alaana lil laylata xalba dirtidaad min baadi ma jaa bishaatin wa midaad yàlla nooyalal na ma xolub ku murtat bay léewtoog man guddik tey jii ginnaaw bi nga xamee ne nee naay ñëw na di tuub si indaale ab gàttam ak daam kon yooyu ci xew-xew yi la yi la bokk ma jeexal rek ci ne nag yim fi taali fi bari na tudd naa rum waaye bokk na ci wala xad karam naa bi nga xam ne nag moom ci mujj gi bi mu koy taal bi mu koy taalif ci lay wa ci lay xamle ne tukki baa ngi bëgg a jeex ba mu sant yàlla wax ko ne ko rabbaytani rabbi fi l aadaai muxtariban a rujuaya lil awtaani qad xaana yar nga ma ci géej gi yow sama borom ndax jihaadu nafs wax bu ñu nekkee maayam ba waxtaane woon nañ ko bokk na ci li ko taxoon a jóg mooy xeex ak bakkanam yàlla di ko tarbiye ci biir noon i di ko teg ay nattu ñaar téeméer ak juróom ñaar téeméer nattu ak ak juróom aaya yi suratul mu nekk nattu yonent nattu bu ci nekk mën a yóbbu ruux yàlla dimbale ko téyal ko ruuxam ak muñam ak jomam fitam tawxiidam yàqalu ko dara fii la toog di taalif ay téere yoo xam ne mi ngi ko liggéeyee ci mbootum xuloo wallaahu ahad su ko masaana bind ba mu àgg day jog taxaw di di bàgg ci biir tubaab yi di ko jàng ca kaw muy jeexital ki seeni i xol ni nga xam ne jaas yi ak fit ak épée yi la jeexitale ci ñoom baa ko raw maanaam yar nga ma ci noon yi rabbayta ni rabbi fi l aadai muxtariban ma tumuranke léegi nag xataa rujuuaya lil awtaani xat xaana sama dellu ci réew ma nag jot na fekk na boobu maam Cheikh Anta ñëw na fi fekk ko fi ba mu jox ko mool yi mu dégg mu yóbbaale sëñ fekk na sëñ Modou Lo Dagana jiitu na ko fi moom dem wooyi ko mu ñëw mu mu jox ko mu jox maam Cheikh Anta mu yóbba mu ne nag sama dellu ci réew ma jot na waaye damaa bëgg nag sama dellu googu nag na doon suñu texe man ak sama xeet ak ku ma bëgg ak ku ma yaakaar waaye bu ëllëgee buñ dem sawara ijal rujuan ila qawmi saadatana wal takfina yowma jami al xalq nirana assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, un peu bref euh, en français euh, Monsieur le chef du cabinet du maire de Lambaréné et nous vous transmettons les salutations du Khalife général des Mourides et les salutations du maire de Touba. Parce que nous, la mairie appartient au calife. Parce que tout le monde suit le calife et le calife qui décide de nous mettre là-bas en tant qu'adjoint maire. Donc nous sommes venus ici en deux, deux, casquettes. Celle de représentant du calife avec Serigne Kosombake, qui est avec moi, et celle de la mairie de Touba. Et vous transmettez nos salutations à Monsieur le maire qui nous connaissons bien, qui a déjà visité Touba. C'est nous qui avons pris l'initiative de l'inviter. Mais quand vous vous rappelez, quand nous sommes venus ici, il nous a dit que ici au Gabon, ils reconnaissent l'officiel. Il faut que les autorités nous invitent à travers vous. Dès lors, nous ne s'étions pas à la commune de Touba. C'est comme ça qu'on s'est parlé avec euh, Madame Soham Vardini, et, la maire de Dakar. Et il nous a fait l'honneur de l'inviter officiellement. Ils sont venus avec euh, le maire de Mayomba et pour l'inauguration de la mosquée de Massalikul Djinan. Ils nous ont fait même l'honneur de venir à la mosquée même. il s'était assis dans le salon d'honneur avec Serigne Kosombak. Donc nous renouvelons nos, vraiment nos, nos, à Moussa. Je sais que c'est le calendrier qui est chargé, mais sinon, il sera ici parmi Et nous vous le transmettez nos sincères Vous savez, la mairie de Touba, comme le professeur Gay l'a souligné tout à l'heure, on peut avoir et vraiment continuer pour travailler sur le jumelage entre Lambaréné et, et, et, et, la ville de Touba. Nous sommes prêts et dès, dès qu'on retourne au Sénégal, Inch'Allah, on fera tout pour s'accélérer ce dossier parce que là, il ne faut, faut, pas attendre. Il y a d'autres volets aussi, c'est la coopération que vous évoquez tout à l'heure sur la formation de, de, des gens. Tout cela nous incite de venir ici vraiment pour euh, accélérer ces, ces, ces choses. Et nous vous remercions et au nom de Serine Kosombake, que j'accompagne et qui est le chef de la délégation, et vous prie de, de toujours collaborer avec les Sénégalais et aider les Sénégalais. Parce que quand on dit les mourites, les mourites c'est l'islam. sont tous les Sénégalais qui sont ici et il faut vraiment les aider et les assister dans tous les vos besoins qui sont besoins de vous. Parce que vous avez la mairie est toujours occupée des des des des problèmes de de de, de la société de de de de Serigne Kosso et, et au nom de l'ambassade qui nous accompagne parce que c'est notre autorité. Il y a Mousselo qui représente le l'ambassadeur sénégal qui est ici. Donc euh, nous sommes prêts vraiment à vous accueillir au Sénégal pendant le Magal, allah Parce que c'est ici que le Cheikh a formulé ses prières. Et ces prières, c'est nous qui avons les fruits maintenant. Et vraiment, vous êtes les bienvenus. Et merci beaucoup. di sant mbokku taalibe yi yëpp yu làmbare na ci turu sëñ Koso Mbàkke di leen xamal ne yoon wi metti na waaye jaral nañu ko bi ko commencé ba léegi moo nekkoon invité donor bi ñu ciy sant nag famille Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne nii ñoo ci àndoon ak Cheikh Mbengue mii ak euh, Baddo Sène ba tax ñu jóg ñëw xam naa nag war ngeen a gën a sant bu baax ndax Serigne Kosso barki démb la jógee Màkka yàggul yoon wi nag wax dëgg yàlla metti woon na waaye def nañ ko ngir jàppale leen xam ne ñun ay taalibe Serigne Touba lan dañoo dañ leen a war a accompagner lépp lu ngeen soxla ah di gërëm sama mbokk yi mu fi taseel Serigne Fallou mii Euh, ndax li mu wax fii. Mhm. doy na sëkk. Mhm. ndax euh, ku yàgg a gëstu la. Mhm. ci mbirum Serigne Touba fii ci Gabon. ah bu ngeen ko dee déglu. da ngeen am ay information yu claire. ndax wax itam dafa war di tege ci ay source yu leer a leer a leer bu ko defee ñëpp mën koo jariñoo. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. alors euh, avons épuisé l'agenda mais dans un agenda mouride. Nous allons donner la possibilité de recevoir des prières formulées à l'endroit du maire, à l'endroit de la commune, à l'endroit du conseil municipal et des autorités locales, mais à l'endroit du président de la République. Nous allons demander au nom de Cheikhoul Khadim, notre guide, son petit-fils qui est là, qu'il prie pour que cette communauté soit une communauté unie dans la santé, dans la longévité et dans le succès. dañuy jox kàddu gi jëmale ko rek ci sëñ bi xaw ko tiimale rek mu defal ñaan mbooloo mi fi nekk yëpp nga xam ne directeur de cabinet bu maire bi mooy ñëw teew ànd ak mbooloo mi mu àndal ah délégation bi sëñ alam bi amradina fatiha lana wa anta alam bi faqrina faghniha lana wa anta alam bi dijina faqad ij'alna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 İslamiyet kimin olduğunu gelecek imam, gelecek imam, gelecek imam. Thank you. سقت لي في البحر ما كنت أجريا بجاه الذي سيّا لك خطابي يا الحق يا مجيب يا من به لا زمن غير حبي وللذين قد تعلقوا يا هدى به لخير مطلق إياك نعبد ونستعين وإنك المغفور المعين ألتنا بك عليك يا رقيب يا من به يلوله كل المغيب على الصراط المستقيم هب لنا هدى به يخرجنا من قبلنا بعد الصراط المستقيم